أني الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعترادي برأني الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعترادي برأني الباقي من الأمراض وكب أبي لو أسكاري على آياتي أبدا خديما فات بالآيات أذكر وأشكر الذين سربوا من أدبه والجنان قربوا هذا لا ترى خيري موجزة بان لوزن خيري يجود الجواد بالجياد وزودني يكون ذا القياد أياني الباقي بلا إماتة ولا تنازع ولا سماد, آتاني الباقي الكتاب العظماء زمان ولا ألاقي كل من تعظماء أني جزا والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يزال خيدا نفاني بالمذهب المصفي لبيك لبيك لبيك حسن والجنة يا القادم يا سلام أنت لا من جهل سألي وزف القلدا قلبي ذبى بك ربي قلي هبي ولي جعل كثرا قلي وجاري على تدارين وفيهما جعلني جارين نبعني بما بدا وما اختفى وكون والي بمنايا ما اختفى فرعاج بالله الكريم والرسول وحزبه ووز من غير رسول رب امتدى ومن باقي دفع أسن توجه إلي فالنفع أكمنيلاكيم وولكما ومن وتاتي المنى والإكم يقودني الخبير والعليم ما دون العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سيرت به لبس علم أهلا Barang. Assalamualaikum warahmatullahi rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi santaat borom Tuubaa ci li nëbb ak liggéey mbàkke di gi ak dimbal gi ak bëgg gi ak yéene gi lépp sa loxo yow mi gën a jege borom ñi ma àndal di ëwlu xasida Daaru Salaam Tuubaa njurul di nuyu baax di la nuyu baax te di la sant bu baax te di la ñaanal ci ndimbal gi ak tawféex gi ñu defal ba àdduna sépp xam waaye nag muy liggéey boo xamante ni na nga ko waxee woon noonu lay amee saa su nekk mooy tepp tepp moo gën yuréel loolu saa su nekk ñu ngi koy gis am na yoo xam ne nag du jar di leeral ci micro waaye xam nga ko ñenn ci ñu may àndal xam nañ ko waaye ndimbal bi ak tawféex moom ñoo ngi ñoo ngi koy seeral ñoo ngi koy sant ci borom taa di la ko seeral néew nañ loolu kattan new nañ lool katan bak waaye pas-pas bi ak bëgg gi saa su nekk ni ngi te fu jëm di la ko yóbbaale mbooloo lu mu bëri bëri wala lu mu néew néew sa jëm ci la ñu yóbbaale loolu na la leer ma waral ñii nga gis ñi ma àndal ñëpp muy góor yàlla soxna ay borom pas-pas lan soobu ci xasida day, day pas-pas boo xamante ni boobu soobu di nga gis lu ne di nga dégg lu ne ngir loolu la laaj boo yokk yokkee nag ñu fàdd sa da ñu ñu ñu la nga nga nga yëggu suuf dootoo yegg waye ñi ma àndal borom pass pass lan ma bëgg nga ñaanal ñoom ñëpp fañ bëgg yegg ñu yegg ci barke suñu Gaawaan ñoo ngi indi suñu addu mu nekk ni yeen ji kawé lool doole ji neew lool ci say waye pass pass pas bu bëri lool te li sa su nekk mu yok te liko yok xamuñu waye waaye dimbal ndimbal mako nag won 2019 rek ku su képp ku ñëw sakku ci ñaan ci yow boko ko mo am lolé la ni ngi jógu fi te lépp loo dugg di nga ci am ndam loolee mi ngi wéy di rax suñ jëmm yi te loolee yaa ñu ko waxoon 2019 di ngay jël ndombali di ñu ko takkal muy loo xamante ni am nañ ci ak sant bu kawe ñoo ñoo la ciy sant di ko santale borom tubaab mi nga xamante lépp moom la kàddu yi du gudd ndax dama koy bàyyee seex mi nga xamante ni bu ñëwee mooy jël sunu kàddu ci su jëmm ji di ñu ko jotale waaye maa ngi sant ñëpp suñu baabi tax jëwriñ teg naa ko sa loxo nga santal ma lu xasida ñëpp ñing ma boole lo bu tan ki kan na nga nii Basiir fa nga nee Ibrahima mi nga xamante ni moom laa dénk lépp lu jëm ci walum fulku bi ñi jang dara mi ñëw na kon buma lima la waxon rek bu may dox ci liggéeyal borom tuwa gis ñaar duma ma ragal suma ma gisee jëwriñ si sama kanam gis eh, Basiir mi sama ginnaw loolu do na ma sëkk ab liggéey xëccu mbolo di liggéey soxla mo mbolo soxla mo dara pass pass bu dëgg këpp jëm ci xasidé la bëgg yalla yàlla ma ngi sax ci jëm ñi nga yesaraat sama jëm ji buma buma xam dara kan loolu xasidé

كن فيكون في وجه المرام تكريم ما ليس له لي به تبتدر الله بعد لي جوج الكريم وكرم وكرم باق ودود لا أفارق الكرم الكرم سالي إله أنني مكرم قل وحب وبي كرم رديد عنه وواني رادي وكان لي بالأمن في أغرابي واجني جميل النعم بجميل ولسوى مختار di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ci barke Sëñ Tuuba waaw li ma ta wax yëpp daanaka wax nga ko nag wax dëgg yàlla ndax maanaam eh, saw doxin moom ñun rafetlu nañ ko lool barke nañ seen xarit ndax maanaam doxin yi moom maanaam yéeme la moom koy xanaa dañuy ñaan sëñ bi ñaanal la maanaam sa doxin yii saa saxal la ci. waaye doxin bi moom rafet na lool barke si yàlla xam loolu moom da nga koy seede te yàlla rek tax ndax sëñ bi bu la takkaloon garaat bi ba noppi ñu ñu lay gis ci ci neneen dana nu naqari waaw dana mel dana demee neneen waaye wallaahi asiim maanaam doxin bi rafet na lool te maanaam bu la takkalee garab xam na li tax mu takkal la ko fekk si yow xam ndax yaa ñeneen ak ñeneen ñeneen ci daara ji mu xëy takkal la garab kon xam na garab xam na li tax mu takkal la ko yal na yàlla dugal sa li nga bëgg ci bi yàlla na ko def ni ko bëggee barke si yow xam ñu ngi siyaare sa mbir baax na barkee bal la asalaamaaleykum sëriñ bi nee na ñu ngi sant yàlla bu baax neen

lu nu am ci Serigne Touba rek Serigne Gaawaan moo nu ko may nee na ñu ngi koy sant bu baax a baax nee na di naan sunu borom gën koo dolli xéewal nee di nuyu mbokkam yu tëdd yi ci nu jooram Serigne Modou Mamoun Mbacke ak nee na waajuram Cheikh Mourtada ak Serigne Abo ak mbokk yu baax yi àndal yëpp nee na di nuyu réew mi Cheikh muy daayira te Seydou Cheikh bi nee na wax ni sëriñ bi nee na Cheikh Abdou am na mbégte bu baax nee lim la waxoon rek nee na moom rek la lay waxaat nee na sëriñ Touba li mu yor mayew ko leblew ko saraxew ko nee na lu mu liggéeyal yàlla sunu boroom la jaar ko ci yonent bi ba sunu boroom jox ko jox nee kon ku ci bëgg daa amum njëg njëg gi mooy pas-pas bu wér ci sëriñ bi mu gënal la sa ndey gënal la sa baay gënal la say so jabar gënal la say doom gënal la sa alal gënal la sa lépp nee na nga sàkkoo ko ngërëmul sëriñ bi nee na su ko defee nee na su ko defee dana la defal loo xam ne sa ndey mënalul la ko sa baay mënalul la ko say jabar mënalul la ko kenn mënalul la ko waye nak neena na pass passa koy maye ay théâtre maye ko de ray ray lan teeg ay masla maye ko de neena li nek ci loxop seigne touba mo moom ko yero ko fay jere nag njëg gi nak moy lu melni li seigne abdou def dajale sa alal mu bari lol nga bëgg ko lool am ci soxla bàyyi lépp jox ko sëñ Touba nee na sëriñ Touba ñimewul bor daa mën a fay nee na te sëñ Touba lu ko waay di defal danga koy njukkal waaye mënoo boo fay waaye ndax sëñ Touba moom ci boppam dund na wax ne mboolem ñu aju ci moom bu nu ajuwul woon ci moom ñoom ñëpp sawara la kon kon ñun ay ci sawara la woon ñun ñun Tuubaa nag moo nu goreel ñun nee na Sëriñ Tuubaa moo buddi suñu jéng sawara kon lu ñu jox Sëriñ Tuubaa rek ak lu ko gëm ko fonk ak lu ko fonk ak lu ko liggéeyal loolu pas-pasam nee na pas-pas jàppul pas-pas bu gën a rëy pas-pas bu jëm ci yàlla nee na yoon jëm ci yàlla nag bari na lool ni nooy liggéey bi la ko ne sëñ bi a gaaw ko moom nee na kon nañ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax nee na ñun ndaw ñi bëre baax na lool football baax na lool nee na yooyu yëpp baax nee na benn baaxu ci nee na li tax mu ne baax na ña koy def ñoom ciy gis seen bopp waaye nee na moom lu yàlla tere moom du mas a baax nee na waaye yooyu yëpp nag jàpp ci sëñ Tuubaa jàpp ju wér boobu nee na waaye yooyu yëpp jàpp ci sëñ Tuubaa jàpp ju wér moo gën loolu lépp nee na kon nan góorgóorlu bu baax a baax gën a jël suñu itte ak sunu pas-pas gën koo jëmale ci sëriñ nee na sëriñ Tuubaa nag dafa fiir lool nee na ni nga xamee ne benn loxo lenn rek la mën a jàpp nee na Serigne Touba noonu la mel nee na da nga koy jàppee sa loxo yi nga yor te bañ cee jàpp leneen nee na boo kiimee jàpp len leneen rek Serigne bi rëcc la moom nee na kon nanu gën a góorgóorlu bu baax a baax nee na amoon nanu yéenay wax lu gën a yaatu. nee na waaye bokkam yi mu toogal nee na bëggul jotaay bi yàgg ci ñoom wa nee na xam na ne sax jotaay bi du yàgg ci ñoom moom ndax seen Tuuba boo ci wax fii ba suba xol yi day a bëgg rek nee na fu ñuy waxtaanee nit ñu baax ngir mën day sunu borom dafay wàcc nee na nit ñu baax ñi rek la ko wax nee na ñu baax ñooñu nee na ñu baax ñooñu moom Sëñ Tuubaa nekk ci seen kanam nee na kon mën na noo rafet njortu ni yërmande yàlla mi ngi wàcc fii ci jotaay nee na kon sant yàlla bu baax a baax nee na Cheikh Abdou sëriñ bi nee mi ngi lay sant bu baax a baax nee ci loolu nag lay occasionné waaye waale santaane mboolem jëwri ñi nekk ci kër gi yëpp nee na bàyyiwul kenn jëwriñ Seex Ba nee na yaa ko ci moom mu ba tey jii mu nekk jëwriñ moom itam mu ànd ñu baree bari ñoo xamante ni moom sëriñ bi mooy seen jëwriñ jëwriñ Cheikh ba moom moo indi ci moom Seydina Omar mii Seydina Omar moom pëstéefam ñëpp xam nañ ko nee moom boo ko gisee moom sëriñ bi nee na boo ko day toogee neneen ndax pas-pasam na mu na ci sëriñ bi nee na ndax moom ay jëwriñ rek la ñoom. waaye nag Serigne Touba mooy borom yëf yi mooy borom tool yi nee na mooy borom yëf yi mooy borom tool bi ab tool nag lu ca laal nag lu mu tuuti tuuti borom yëpp ko nee na kon liggéey bii ñuy liggéey Serigne Touba. Serigne Touba ko ay toolam a yaatu rek ay toolam a ne Daaru moo nekk Daaru Muxti moo nekk feneen ak feneen waaye tool bi moom toolub sëriñ bi ñi nekk ñépp nag di liggéey sëriñ Touba rek la liggéey moo leen añal àddina ak àllaaxira jëm jëm sering bi nee na kon ñëpp nan rafen sering te xam ne angnon bi li mu diggee ak nun mën na ko mën bu wér loolu moom nee leer na nañ nee sunu waajur yi sunu mawi dono seen seen kenn kenn nee na suñuy waajur ak suñuy waajur ak itam noonu ñun nee génération bii ku ci am pas-pas bu wér ci sëriñ bi jaar fa mag ñooñee jaaroon noonu rek lay demee nee sunu boroom ñi muy jëflanteeg nit du ko soppi mukk nee na ni ñu soppiwuñu ni ñuy jëflanteeg nee na kon Serigne Touba fekk ñu ngi sax ci di ko liggéeyal fekk ñu sax ci di ko bëgg fekk ñu ngi sax ci di ko xeex jëm ci moom sunu lépp day gën a jàppale dañuy gën a am xel mu dal ci àddina bi gën koo am fa nu jëm nee na loolu nag li koy maye mooy gën a tënku ci sëriñ bi rek. fexe ba sunu yëngu ak sunu dal lépp jëm ci Serigne Touba Serigne bi nag mooy lislaam mooy jaamu yàlla mooy liggéey mooy nekk ci li nga war a nekk mooy dëggal mooy xam li nga war a nekk nekk ko muy xam-xam jëfe xam-xam ay ay ak ay teggi loolu rek kay Serigne bi nee na kon ñu ngi sant bu baax. nee na bu nee na bu kiiwee day guddal rek nee na bu ñu waaye sëriñ bi waaye boo ci wax doo bëgg a sax noonu doo bëgg a sax noonu nee na waaye nag loolu jaadu na. ndax koo xam ne bu yëkkatee xalimaam bind xarsu raxmaani sunu borom bi daal di yëngu malaaka yi xaaju di sàbbal borom bi isaaka tëbtu ihtaxsha xarsul baaxi wa sabaat malaaka tibaaxi nee na sëñ Tuubaa nee na saa yu yëkkatee xalimaam di bind nee na arsu rahmaanu sunu borom ji di yëngu jaayu nee na arsu rahmaanu sunu borom ji nag nee na moom misaal na ko ci sunu xel ni mu toll nee na fekkoon sunu borom jëmm juy toog daal sées ba muy toog moom la ñuy woowee aras nee na Serigne Touba nee na su yëkkatee xalimaam di siis boobu day yëngu nee na siis boobu day yëngu malaaka yi di sàbbaal suñu borom malaaka yi di sàbbaal suñu borom kooku nag leneen la nee na li ko naar ba waxoon rek ni ko yow daal xéewal nga rek bu suñu borom xéewalee waa àddina waaye xéewal bu baax a baax nee na kon ñun nag nañu gën a sant nee na lu nu sant doyul ba sunu borom exceller ci ñun xéewal boobu xéewal boobu nag mooy Serigne Touba kon alhamdulilahi rabbil alamin Serigne bi nee na mi ngi sant bu baax waajuram yi toog nee na ñu ngi sant bu baax Serigne Modou Ngom nii toog nee na nga xam ne moom it sunu waajuram la àndaloon moom itam di liggéeyal Serigne Touba. nee na boo demoon boo demee gaawaan ga ca kaw la quartier Serigne gaawaan la moom mii moo fa nekk moo yor quartier ba nee na mi ngi koy nuyu bu baax a baax nee di ko dalal nee na di sant bokkam yi mu dendal nee na di sant ahlu xasida bii fi nekk nee na waa kokk itam nee na ñu ngi nii egsi non na di seere rek li wax ndax nga wotuk sëriñ gawan la ndax sëriñ Mor Diouf ndoran nee na lu way ñak xam-xam ci sëriñ keur sëriñ gawan degg nga ko nee na ñoom ñoo alali borom gawan la nee na te sëriñ mo moom nee bu ci duggé nee na day gën a yàggal jotaay bi nee na ndax moom daa am lu ko daloon ci sëriñ bi nee ndax li ñuy wax bëgg buur nee na buur bëgg la nag da koo gën nee na loolu nag da koo daloon ci digganteem ak sëriñ bi nee na ndax moom te moom it dafa am ay jagle ci sëriñ bi xam-xam yoo xam ne kenn fekk ko ci nee na teewul nag yëpp a baax nee na ndax sëriñ bi ñetti dëkk yii mu sanc muy Daaru Salaam ak Touba ak Mbacke Bari Mbacke Mbacke Bari sax nee na am na ñu wax ni dëkku ay maamam la woon sëriñ bi da ko yeesal. waaye daaru salaam bii moom Serigne Touba ko sant ak Touba nee na kenn mosu koo moom kenn mosu koo dëkk Serigne bee ko sant bi mu jógee Mbàkke ñëw fi nee na Cheikh Mouhamadou Moustapha ganee fi àddina Cheikh Mouhamadou Fadal ganee fi àddina nee na mu yëkkati ko yëkkati Daaru ak juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent jox sëriñ gaawaan ne ko rafet rafaatalee naa la loolu nee na kenn ku ne am nga gërëm ci sëñ Tuubaa waaye jox la dëkk jox la dëkk boo xam ne suñ bee ko sancal boppam nee na loolu moom yombul la nee na boole ci juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent nee koo ku xam keneen koo xamante ni defalee na ko ko noonu mën ko koo wax nee na sëriñ gaawaan daa am bari ay jagle ci sëriñ bi nee na bi nga xamee ni sëriñ bi nekk na ci géej gi tam ba sëñ bu baax boobee ko ba mu àggee da koo laaj sëriñ ba mu ko fa téewee ab diir dani ko dellul Sénégal boo demee nga woon ma Serigne Gaawaan Serigne Gaawaan jógee fii ànd ak Serigne Mun Njaay Jóob dem fekk Serigne bi Gabon moo tax Serigne Moussa Ka di wax ne yaa fi demoon Conakry ci Congo fekk Serigne Touba nee leen ma góongóor Serigne Gaawaan jógee fii dem ba Gabon fekk fa Serigne Touba. nee na ba mu fa yeggee am na yu ko sëriñ bi wax nee loolu nag du waxi mbooloo sëriñ bi jox ko ay xasida yu mu yu bari ci jamono joojee ndax booba tubaab yi seenu caay-caay àgg bi dañuy def ay jalgati yu bari ci mbindum sëriñ bi sëriñ bi jox sëriñ gaawal lill mi mu indi ko rawale bari na yoo xam ne ku ko am ci xasida yi ci dencub sëriñ gaawaan bi na nga ko amee sëriñ bi tam bi mu ñibbisee ci géej gi ñi booba ñëpp a ngi booba ñi sëriñ Tuubaa ñoroon ñëpp boroomi cër la waaye kenn ku ne nag da amee jagle nee na bi sëriñ bi ba agsi kenn ku ne bëggoon nga mu ñëw ci yow. nee na nettali nan bi sëriñ bi ñëwee Dakaaru ci botam booba murid yépp a ngi nee na booba wax nan ne danoo toog lu yàgg benn tubaab génn ni ana anta mu wuyu mu ne ko ñëwal wuyu sëriñ bi nee na bo sëriñ gaawaan yéeg ci botam fekki sëriñ bi nettali nan ni nee na sëriñ bi moom dafa àbboon ci boroomam foo xam ne yéeme na lool nee na sëriñ gaawaan ci xelam mu rafet mu sell mu yóbbale ay waajukaay waajal sëriñ bi ba mu neex a gis gisaay andak mom moom ko gis sëriñ bi rek gis ko mu ne ko seex foo ma mën dégg rek dama fa jaar waye daru salam nak la jëm si lolu na loolu sëriñ gaawaan rek ko xam nee na sëriñ gaawaan rek ko xam nee na sëriñ bi delu ndar jaar lu ko jaar sanusi jaar ñaxal jóge fa ñëw Daaru Salaam def fi nganam ko suuf boobu ñu ko fi def nee na wax na ni sëriñ bi boo demee ci irwaaru irwaaru nadim mi ngay wax ni lu mat fukki fan bis bu set sëriñ Gaawaan fukki nag ak ñaar lay rey nee na sumatul gilleem la ni rey mottalee ko bis bi nee na Serigne Gaawaan moo xamante ni nee na danoo ay parfum sikki pour kër gi lëmas garab yi taaral ko lëmas garab yi taaral ndax lan ndax lan xam gi mu xam day xam na moom daa doonoon xeej jub Serigne bi daa bu ñu toppee wax ji dañuy guddal te am na ñoo xam ne fan jëm sori te yàkkamti nan nee na waaye li wér te wóor Sëñ Tuubaa moom Sëñ tubaa ma jamonte jamonante woon ak Sëriñ Gaawaan ba fii muy waxee ak ñun lam mënoon moom tey la ko ñun ndaw ñi nag képp ku am pas-pas bu wér ci sëriñ bi foo mënta àgg amul te yëf yi nag néewul ci loxoom njaago néewul ci loxoom tukkuloo nekkul ci loxoom séeréer ci loxoom sëriñ Tuubaa la nekk ku ko sàkku sàkki wér ci sëriñ bi sëriñ Tuubaa teg ci sa loxo lu wér a wér nee na loolu moom min nga koy seere kon Cheikh Abdou sëriñ bi nee na xolam sedd na bu na yàlla na xolub Tuubaa sedd ci yow na waaye daal yoon yi mu ngi nii nee na loo man ren nag nee na su déwénee yàlla na nga mën di ko ci barke sëriñ Tuubaa nee na ku fi indi jàngoro yàlla na ko sunu borom saabara ku fi indi njàqare njàqar njàqare loo xamante ni yow rek yaa ko xam yàlla na ko suñu borom saafara ci barke Serigne Touba nee na yàlla na suñu borom jox wërsëg